ñu bari laaj nañu ma question comme li ma ko waxee tout laaj nañ ma Sarr pourquoi nga def ko lam-lam dafa xaw a bi ma ne leen nous on a des jeunes loolu dafay firndeel ni fu mu mën di nekk ndaw ñu fekk ñu fa moo tax ñu defe ko fii ci diwaan bi nga xamante ni dafa am ressource boo xamante ni ñu ñëpp dañu ko xam ta lan lay jëriñ askan ñu bëgg a attirer l'attention du président de la république pour que li nga xamante ni mooy ressource bi fi am mu di meññeef bu am solo ñu delloo ko ci askan bi même bu ñu mënta delloo lépp xam na ni moo ngi dem ci biir réew mi waaye tamit askan bi fi dëkk mu gën ci mën a gis boppam liggéey yi nga xamante ni président de la république toujours moo ngi koy jàmbat mu ngi wax l'emploi des jeunes ñu ñëpp ñu dégg di ko wax ni ko fii nii ci diwaanu Chérif Lo ressource bi fi am muy phosphate bi ku ne di ko ndërmeelu naan jeex na wala jeexul te toujours ñu gis nasaraan bi di ko exploité ñu wax ni nag président ak taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci réew mi mu bàyyi xel ndaw yooyu mu bàyyi xel suñu appel bu ko defee au moins ñu renforcer les mutuelles de santé renforcer njàngu xale yi école yu bëree bëri c'était des abris provisoires maintenant ci loolu ñoom ñu war a mën a taxaw ci posture boobu ngir a mën a saafara loolu loolu rek moo waral ñu woote fii si diwaanu lam te amaat na yenn occasion incha allah yoo xamante dinañ ko defaat ci yeneen jotaay même bu jaree ñu dem ba sebi ba sebi xotaan wax lu fa nekk bu jaree ñu demaat feneen wax lu fa nekk loolu mooy suñu ndaw mooy suñu taxaw ñu di jaajëfal ponk yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi di leen ñaaxaat ci liggéey di leen ñaaxaat ci stabilité di leen ñaaxaat ci fayda ak ci jom ci détermination ak ci xaqiqa ndax xaqiqa rek moo mën a génne réew mi ci ndool bi nga xamante ni moom la nekkee xaqiqa rek moo mën a génne réew mi ci jëfin yu ñaaw yu ñu gis ci réew mi wax naa ndaw yi nga xamante ne ñu bokk ci mouvement ndaw du foowee dëgg dama leen a tere di sanni xeer di toj di grève parce que loolu lépp suñu ko defee maanaam ñun ñooy defaraat suñu réew ki nga xamante ni dafa war a construire ndaka lay toje loolu moom laa wax léegi te maa ngi jaaxaat askan bi ñu gën a taxawaat taxawaat ci fayda ci jom ci détermination ngir mën a am Pastef boo xamante ni toujours dina xam ne kuréel bii di ndaw du foowee dëgg am na lu mu participer ci réew mi loolu mooy suñu waref tey comme ni ma koy waxee moo di jaajëfalaat askan bi jaajëfalaat jeunesse bi wax leen ni leen réew caaxaan du ko construire réew du ñu toog rek croiser les bras ni liggéey amul bu ñu def loolu ñu ndaw ñi réew yëngatu moo ko yor bu ñu xeeb métier bu ñu xeeb métier man raxas naa oto man raxas naa oto te j'étais à l'université Cheikh Anta Diop te boobu j'ai j'avais eu mon master te doon naa raxas oto ngir mën a taxawal samay activité pour wax la ni la doomu aadama lu mu nekk rek góorgóorlu ci yàlla ñëw réew nag discipline moo ko yore réew éthique moo ko yore réew déontologie moo ko yore réew liggéey moo ko yore donc maa ngi woo ndaw ñi ci ñu bañ a xeeb te gën a gëm seen taxawaay si on est vraiment optimiste d'aller vers la perfection kenn mënuñoo génnee ci réussite loolu lay dénk ñëpp